بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل اقدار يلاو سرد بقاء بي لفيك يلاو بسم الله اكسنيل اقدار يلاو سرد بقاء بي لفيك الله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 أنزاري مراسي أيو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني واقل بزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كردي تدار يا الله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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي جلدي مبكي تالبي جناو بنو سنتي الله جلدي سنتي الله محمد صلى الله عليه وسلم نونغ دولي سنتات سرين توبا مبكي سنو يا كارتيك ألك مومي غا خمني لواي أم دي تالبي مومي لكو ورا سنتي ndax lepp lepp moma euh yéene yekati sunuy kaddu ci turu sunu bayyi sunu serigne bi nga xamantene bi moy khalifa serigne mam cheikh ibrahima sar ndian borom jazaka, di sunu bayyi serigne cheikh seydil mukhtar sar nogi koy ñaanal yalla sunu borom yagal ko fi lol te defal ko ak waaye defal ko mbooleem ay rakkam defal ko mbooleem njabootuk Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ borom jazaak gépp nag di fas yéene nuyu itam ki nga xamante ne bii mooy sunu kilifa ci jataay bi di Serigne Mame Modou ak mbooleem rakkam yi mu àndal bàyyi wunu ci kenn ndax xëy na dañuy bañ a lim di guddal waaye buñ xasee ba tudd sunu mag sunu kilifa di sëñ Mame Modou ibnu Serigne Cheikh Seydil Muxtaar Sarr day daal di doy sëkk su ko defee njabootug Cheikh Ibrahima Sarr gogu fi ñëw tey ci kilifteefug sëñ maam Modou Sarr moo fas yéenee lu jitu lay don jeme ko ci sunu mam Serigne Mansour Diaw waaye rawatina ci njabootug sunu wayjur di Bay Serigne Jau ak mbollem ak njabotam rawatina ci Serigne Cheikh Diaw tabaarakallaahu mom mi nek ci bop keur gi diko ñaanal yalla mu yàgg fi lol te wer mok ay rakam yep nak bis bi nga xamanteni bi moy bisu sunu wajur wu tedd wa di bay Serigne Diaw mu ko taxawé mom ak mbollem ay rakkam wuñu ci kenn nak waye it di leral mbolo mi ne ci biir délégation bi waa daayirab sët ak sëtaat yi sëriñ maam Cheikh Ibrahima Saarit ñi ngi teew njiit li du jar ñu koy présenté ndax am na cër ci kër gi muy sëriñ Ahmadou Diaw Mansour ndax moom mooy njiital daayirab sët ak setati yi sëriñ maam Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ borom jasaaka waaye itam amaat ñoo xam ne kilifa lañ ci biir daayira boobu deesu leen mën a ñàkk bañ a tudd ku ci mel ne sëriñ Moustapha Sarr mu sama baay Serigne Fallou Sarr mu sunu maam Serigne Mbacke Sarr ku ci mel ne Serigne Bamba Sey ku ci mel ne Serigne Touba Sarr ku ci mel ne Serigne maam Adama Sarr ñoom sëñ Modou Sarr ak sëñ Moustapha Sarr sëñ maam Cheikh saar yi mu sunu baay Serigne Hamidoun ak mu sunu baay Serigne Abdou Bachirou Sarr ñoom sëñ Xaadim euh, Touré tabaarakallaahu bàyyiwuñu kenn muy délégation boo xamante ne bii dañoo ñëwoon tey. fas yéenee ànd ak bis bi njabootuk Serigne Mansour Diaw gépp rawat na ci njabootuk sunu baay Serigne Diaw waaye it fas yéenee ñëw ngir jéem a delawaat njukkal nag sunu xarit sunu soppe wax dëgg yàlla di sunu mbokk mu baax di sunu doomu bàjjan muy Serigne Ahmadou Diaw Mansour mu sunu baay Serigne Diaw ndax nag ni ko mbokk yëpp waxe mbokk yëpp seedee ko ni noonu lañ koy seedewaate te seede suñu yëkkati jëmee ko ci moomit it dañ koy sukkandiku ci alquran ndax yàlla wax ci alquran ne wa ma shahid illa bi ma alim naa doomu aadama moom mënoo seede ci moom lut li nga xam ci moom waaye sëriñ Ahmadou Diaw Mansour wax dëgg yàlla képp ku Cheikh Ibrahima saar meññ rek amel nga ko njukkal ngir taxawaay bu rafet bi nga xamante ne bii taxawee na ko ci biir kër Cheikh Ibrahima Sarr sonn ci moom lool dëgg la sax waruñu ko sant ndax ëppale wuñ ko ci Cheikh Ibrahima Sarr ndax ku ne xam na ne waajuram wu jigéen Serigne Fallou Sarr ko jur te Serigne Fallou Sarr doom la Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ borom jazaaka waaye nag faawu ñu sant ko ndax bu ko sooboon loola mën na ko cee a fekk xam ab taxawaayam nag moo tax mbooleem lu ñu jàppoon no bàyyi ko nun njabootuk Cheikh Ibrahima Sarr ci turu sunu xalifa ñëw fi fas yéenee bokk ak moom bis bi wan ko ne ko nun ak moom benn lañu lépp loo xamante ne bii nekk na ca pare nañ pour ànd caag moom waaye lu mu wan gannaaw it nañ pour wan loolee gannaaw di ak mbooleem njaboot gi sama borom defal leen ci ndam ba lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci ñu am ko ci amin wu kawe njort bala noo jeexal nag nu wax dara rek ci maanaam ànd gi nga xamante ni bii ak diggante bi nga xamante ni bii yàlla sama borom def na ko ci diggante sëriñ man suur jaw mi nga xamante ne bii mooy way waajuru kii ñuy màggalal tey ak sunu maam ju baax ja di Serigne maam Cheikh Ibrahima Sarr ndax sànq li ma wax rek Serigne Ahmadou Diaw Mansour ci waajuram wu jigéen woowu nga xam ne doom la ci sunu maam Serigne Fallou Sarr loola rek daa doyoon sëkk waaye rawatina ci diggante bi nga xamante ne buy xewoon na ci seen diggante ñoom ñaar waaye nag loola dañ naan laaxaar wa fi zalika lu tax ndax dañuy ñoo xam ne kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla liggéeyal nga defal Serigne Touba loo xamante ne bii nii la rawal ci sa moroom warta mën a doon lenn lu dul ànd ak déggoo ak soppante ndax ku ci nekk ci ñoom ñaar am nga ci Serigne Touba lo xamanteni bi ni way la wo xamne day am tambali way way du am fu yam ben yoon ndax man na la ci tudde rek exemple exemple ba moy lan moy kérok ba nga xamanteni bi Cheikh Ibrahima sar borom jassaka waccu na liggey ca 1918 fofé ca Njaareem ba Serigne Touba won njabor ga séré lam séré won ci Cheikh Ibrahima sar te la ca gënoon a siiw di faalam bi annaka indi zurdan abadan joojee sëriñ bi waxoon wax ca yem ca waxoon cib tënk gannaaw ga man Mansour jaw yëkkati woon na ay abyaat marsiyal ko ki nga xamante ni mooy sëriñ maam Cheikh Ibrahima Sarr loole itam lam ca doon tënk du lenn lu dul cofeel gi nga xamante ne bi amoon na ko ci moom ak fonk gi nga xamante ne bi wax dëgg yàlla fonkoon nag ko loolay di loo xamante ne bi képp koo xamante ne bi jàng nga ko da xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar am nga foo tegoon sa moroom kon bu yàlla demee ba indiwaat lii nga xamante ni bi andi na ko la ñu war nun mooy àndaat defaat suñu bopp benn ndax yonent yàlla muhammad ci mu jëm daf daan wax naan saxaabati kan nujuumi bi man ihtadaytum ihtadaytum sama saxaaba yi dañoo mel ni ay biddew ku ngeen roy ci moom rek dafay mel ne gindiku ngeen kon nu itam mag ñu baax ñu toppoon Serigne Touba ba làq seen ngërëm lanu war mooy ne dapp ci seen gannaaw rawatina ci nag ki nga xamante ne bi mooy maamu borom bis bii nga xam ne 1920 ba mu wàcceeb liggéey ca Njaareem moom Serigne Mansour jaw yaakaar naa ne la ca xewoon ku ne xam na ko ndax néew na lu mag daa wàcc liggéey ci jamono ku tedd ki sëñ Bamba daa gunge ka wàccub liggéey ba fañ koy denc waaye wax nañ ne Serigne Mansour Diaw ba mu wàcceeb liggéey 1920 ca Njaareem sëñ bu mag bi bokk na ca ña ko taxaw waaye ànd ak moom bañ denc ko ca barab ya bañ ko dencee ba noppi wax nañ ne Serigne Touba àndoon nag xaal joo xam ne yéem na ñëpp ñu denc ko ba noppi ngelaw lu méttee méttee métti amoon na ba nga xamante ni bi kenn mës da gis kenn wax nañ ne sax sëñ Abdou Karim Touré keroog moo dem ci ku tedd ki ñaan ko ngir bëgg koo gis ngir bëgg pënd boobu ngelaw lu métti loolu manaam dal keroog ba ñu àggee ci ku tedd ki di ko wax ne ko Mbàkke dañoo bëggoon nga ñaan daal ngelaw lu métti lii dal wax nañ ne seriñ Touba danee woon malaayikatu rahmaan yi ñoom ñoo ñëwoon doon jaali si kii nga xamante ni bii moom mooy seriñ man Mansour jaw kon ku mel noonu nag yaakaar naa ne bu ko yàlla boole ka nga xamante ne bii ba mu wàcceeb liggéey te mooy Serigne maam Cheikh Ibrahima saar ca laa jeexale Serigne Touba daa waxoon ak njabootam ne leen jour dan abadan àjjana la nekkoon fala bàyyi ko fekk fi seen jur wi di Serigne maam Cheikh Ibrahima saar di ko teral di ko teral ba mu bàyyi koo fi du ko bàyyi ba ànd ak moom tabal ko àjjana waaye day ñëwaat tàmbalee ko ci doom sët xarit soxna soppe ba yàlla di doon suuf ak ku nekk ci kaw suuf may wax nag ne wax jooju de ku xamut moo koy weddi ndax kalaamul awliya ila su afhamu te Serigne Touba mi ne woon ila yaqaadallahu maalam yakuni wala yakunu abadan li mumkini kuy weddi waxam delluwaatal ci jaawatu bil furqani malaktu nafsiya wa zaxzaxtu lain la tax ma wax ko nag mooy ku yàqule seetaane la yàqal te Serigne Touba wax na ne yàlla daf maa jatangal seetaane ba seetaane mun ci man dara kon ma wàcce foofu kàddu yi di ñaan yàlla sama boroom nangul nu lépp luñ fi def walla ñu wax ko fi ci lu baax waaye di ñaan yàlla sama borom it yàggal taxawaay bi du nu jeexal nag te du nu ziyaare itam ki nga xam ne mooy Serigne Baara Jaw waroon nañ ko tuddu ci njalbeen waaye noo ngi koy ziyaar ci turu njabootu Serigne maam Cheikh Ibrahima Sarr gépp rawat ci turu sunu baay Serigne Cheikh Seydil Muxtaar Sarr mi nu ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér ak mbooleem ay rakkam ak mbooleem njabootu Serigne maam Cheikh Ibrahima Sarr gépp bég nañ tey kontaan nañ tey ñëw nañ tey di woon ñëpp ne ñun ak Serigne Ahmadou Diaw Mansour noo bokk lépp noo ngi koy ñaanal ndam di ko ñaanal ay magam di ko ñaanal mbooleem njabootug Serigne Mansour Diaw wa axiru daawaana an alhamdulillahi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل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 أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أثاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي مثال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وأن كردي تدار يا الله سلم تكن لي من ويوب نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلم تكن لي من ويوب نفسي بيتي إن منك يا الله